وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي خمنا نيوني توب دنيو seetaan di topp suñu waxtaan yi nga xam ne moom lañ bëgg a continuer ci téere mooy almuxtasar fi l aqida nga xamne ñu ngi doon waxtane ci lu aju ci pass pass te nga xamne pass pass boba moy lo xamne julit bi warna ko rango ba nga xamne bés bu mu dajje dajeek boromam subhanahu wa taala dina mën am ngir mal yal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu baxé ñu saxal ñu ba lépp lo xamne ñu ngi koy wax mu doon loo xam ne dina neex borom bi subhanahu wa taala mbokk yi suñu fàttewul ñu ngi doon waxe ci àllaaxira eh, àllaaxira mooy bés boo xam ne comme niñ ko waxee woon mooy bés bu njëkk ci àllaaxira muy bésu eh, àllaaxira mooy ca bésu pénc nga xam ne fa ñuy dajeek borom bi subhanahu wa Euh, al axira mu yowm al qiyaama muy bés boo xam ne doomi aadama yëpp dinañ jóg dem taxaw ci kanamu yàlla mu xisaab leen fay leen ci li nga xam ne moom lañ jëfoon ci kaw suuf bés boobu nag nga xam ne mooy bésu yowmal qiyaama amul beneen bés boo xam ne moo ko fiitu gannaaw euh, waxoon nañ ne bés àllaaxira mooy bés bu mujj ci àddina waaye mooy bés bu njëkk yi tamit ci alaaxira bés boobu la yàllay fay jaam ña fay ñeen la fay leen la nga xam ne moom lañ taxawee woon moom lañ jëf ci kaw suuf te ñu war a xam ne kon amul benn doomi adama boo xam ni dina manqué bés boobu ñëppay ñëw ñu am ña moy ñu le ak ña le wut woomlewut ña ko ñe suufe amul kenn ko xamne ne dina wax ne bes boba duma fa nek ñepp a fay nekk su ko defee nak ñaari mbira fa nekk imma nga bokk ak wa aljanna wala nga bokk ak ñu safara yanañ yalla musul ci ka ngay tuddé julit ka ngay tuddé ku gëm yalla dafa war a gëm bisub al muy bis bu mujj ci àddina muy bis bu njëkk ci alaxira daf ko war a gëm al imaanu bil baas gëm ne bés dina mos a ñëw yàlla dina ma yëkkati dina yëkkati képp koo xam ne dafa deexoon te ñu suul ko ci suuf si borom bi subhanahu wa taala dina ko yëkkati su ko yëkkatee anam bi nga xam ne wala yoon bi nga xam ne moom la ko borom bi jalla wa ala di yëkkati mooy ca ba nga xamee ne of nañ bëft ba israfil su ofee bëft ba mooy bëft bu boo xam ne ci ñaareelu ëf ci la doomi aadama yépp di jóg du ñu sol ay dàll du ñu eh, yaramu neen la def yaramu neen lañuy def te tamit ñu nekk ñoo xam ne dañuy jóg waaye dañuy fandaañu dañuy fandaañu ci beneen waxin boog du dem sunna du dem sunna moo tax borom bi téere borom téere bi nee fa yaqumu nnaasu li rabbil alamin xufaatan gayr muntailin curaatan gayr mustatirin gurlan gayr maxtunin nii la doomi aadama yi di jógee dellu ci seen borom jalla wa ala borom bi ne subhanahu wa taala kama bada'na awwala na nu'iiduhu waadan alayna inna kunna fa'ilin borom bi ne nañ leen kuma nañ leen bindee woon ca commencement ba ca njëkkin njëkk ba mu ne noonu lañ leen di delloohee yàlla ne loola day mooy suñu digee te dañ koy def inna kunna fa'ilin borom bi dina ko def te jalla wa nañu commencé won ñun doomi adama moy ci amuñu won amuñu won borom bi sakku amal ñu dinañu delo wat ci nañu melon mom yalla ya subhanahu wa ta'ala te nay tamit nañ xamne yëkëti nit ñi ñu jog dem yalla fay alquran def ko saxal سنة النبي عليه الصلاة والسلام دفكو سخل إجماع المسلمين دفا سخ نه يالا دينا ني جوغلو موتاخ اب جوليت وارو تا ام خيل ñar ndax dinañ ma dekilo wala duñ ما dekilo ديديد اب جوليت بو گم يال ci lepp lu manti nek warna mana bayyi xel ne bes dina ñew yalla dina gannaaw bi ma deexee yàlla dina ma dekkil te su ma dekkilee lam may laaj mooy samay jëf ci kaw suuf samay jëf ci kaw suuf moo tax bokk na ci tegtal yooyu borom bi ne subhanahu wa taala ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون borom bi nag gannaaw loolu da ngeen di dee wallahi bépp bakan bu fi mos dund di nga mos de di nga dee de moo ñu wara bàyyi xel ci suñuy jëf wara bàyyi xel ci suñuy wax ndax te de moy ñëw borom bi ne thumma innakum yawm alqiyamati tubaathun dinañ leen bekilo wallahi day ñëw de déglul yonent bi alayhi salatu wasalaam ci hadith bo xamne ibn abbas radiyallahu anhuma moko jili jëli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam yonentumina yuhsyaru nasu yaumal qiyamah hufatan ghurlan hadis boobu bukhari ak muslim ñoo ko génne nee na bés yaumal qiyama yàlla day jógloo nit ñi yaumal di juglu. ñu nekk ñoo xam ne borom tànki neen lañu duñ sol daal waaye tamit ghurlan ñu nekk sunna bi lil kon ni la ñuy jege ni la ko alquran indi ni la ko sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ni la ko indi motax borom bi tabaaraku taala di ñu bayyi lo xel ci suñu bop ci doomi adama yeb waye rawati na ko ne gum na yàlla gum na yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi ne afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun ndax da nga na yaakaar ne ne man yàlla yàllaay wax de jalla jalaalu wa azza kamaalu ndax da ngeen a foog ne dañ leen a bindee rek ci ay caaxaan ndeysaan comme ñu bëri tey nañu gise àddina ñu bëri tey nañu toppe àddina ñu bëri na nañu nampee àddina dañoo yaakaar ne borom bi tabaraka wa taala def leen a bindee ci kaw ay caaxaan rek waaye du ñu dee borom bi ne wa annakum te yéen ilayna laa turjaun da na a foog ne do len del wat ci ñun yàlla ah kon mbokk yi ñun ku nekk ci ñun wara farlu wara a góorgóorlu ba bés dina dajeeg mu gis mu am mal borom bi subhanahu wa taala al imanu bil hisab wal jaza julit bi gum warna warna meuna gum warna am gum gum ne yalla day dina ma hisab dina ma compte wala boog compte am na yowmal qiyama te suñ ma compté dañ may fay moo tax borom téere bi ne yuxaasabu labdu ala amalihi wa yujaza alayhi mu ne dañuy compte jaam ba ci ay jëfam su ko defee ñu dool di ko fay moo tax ñu ku nekk ci ñun war a mën a bàyyi xel la muy jëf lan la su fekkee ne lu baax la na ko fulandi na ko yokk na ci lu na ci sax waaye léegoo léegi nga gis ko xamne day sax ci ci mbax di def mbax waaye mu dem be digi dama rek dal di ko bàyyi te du am ben galankor ci mbir moma waye seytaane mo koy man bakkanam mo koy man eh, léegoo leg seytaane ñu dugg ko ne sa alal bi ngay jël diko duggal ci li jaru ko xanaa gisoo diw ak diw ak diw du ñuy dugal seen alal yi ci lolu kon bul ko ci def ke ne la ah jëfandikul sa doole defal lula neex amul problème desan. fàttalekul bes boobu nga xamne di nga ak yalla te def lay hisab su hisabe def lay fay te ku nek ci ñun soko ko ci adina bu gatt bi ñu nek so nek ci place de ligue nga ligue bi wer bi de la ngay bëgg moy fay la sa salari bem mat soo fa demoon ñu ne la sax tricoté salari bi dañ ko dagg liñ lay fay ci weer mi dañ ko dagg du la neex loolu du la neex ndaxte la ngay gis mooy dañ jël sama àq looloy tax nag nga teg ay wax yu bëree bëree bëri di nga dugg nag pour jot sa àq waaye gis nga misaal bu ndaw la ci àllaaxira àllaaxira la ngay jëf moom lañ lay jox kon fexel be suñ lay joxi na don lu bax suñ lay fay yomal qiyamah na don lu bax waye ñun ñu bari ci ñun dañu fat jël nañ adina bi yenoo ko te adina soko yeno yenoo ko fi ko wacce de kon nañ bayyi xel ci adina bu ndax te borom bi tabaaraku taala mo ñu wax ne inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum kon kontang ci suñu gannaaw nañu rafetal nañu baxal ndax dañ ñuy compte te la ca gën doy war déglul borom bi tabaaraku wa taala ne man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis bisayiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun lisan xolal mbax ak li safan ak mbax borom bi ne kep ko xamne indi nga mbax falahu ashru amthaliha dañ la koy fulandil defal la ko ay fukk yu bëree bëree bëree bëri waye su inde ben bu bon borom bi ne fala yujza illa mithlaha ba melni ni bu bon bubu rek lañ lay fay kon bu lu bax amul len lu ko lu ko lu ko lu bax amul len lu ko lu ko kon lu bon yi tamit nag nga war ko meuna a xel ndax te bu bon bu bon bu bon bu bon su yagge day beuri su yagge day beuri kon bul nangu mu beuri waye fexel sa benen wàll bi bobu di ëpp sa benen wàll bi yéen mbokk yi kon alxuraan ak sunna saxal na ne dinañ jug te àddina eh, jullit ñi yëpp ulama u yëpp lu ko commencé ca saxaaba yi ñëw ba fii ñuy waxe nangu nañ ne pas-pasu ahlu sunna wal ña nekk ci topp la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi moom ak ay saxaabaam la ñu gëm moo di ne dinañ mas a jug te suñu jógee muy dekki ba dañu dajeg yàlla yàlla tabaraka wa taala du tooñ lépp li nga jëf ci lu baax ñu fulandil la ko lépp loo jëf ci lu bon yi tamit ñu won la ko nga gis ko te yi tamit lenn yàlla du la ci tooñ waaye ahlu sunna wal jamaa lii mooy seen ngëm ci buntu boobu borom bi nag tabaraka wa taala dafa wàccee dafa yónni yónnenti yàlla yi wàccee téere yi ngir ñu mën ñoo fàttali bés bii nga xam ne du jaas dina ñëw kon nag nañu xam ne bés bii comme que dina ñëw te yàlla dina ñu xisaab dina ñu dajeek moom yàlla nañu yombalal bés boobu mbokk bokk na ci li ñu war a gëm ci biir al axira ci bésu pénc gannaaw bi nga xamee ne dekki nañ war war nañoo gëm ne gannaaw dekki am na ay mbir yu bëree bëree bëri yi ci nekk te loolu yi tamit alxuraan saxal ko loolu yi tamit sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal ko saxal bokk na ci mbir yoo xam ne war nañ koo gëm mooy am na palaas bu njëkk ci palaasu allah axira muy alxabru muy bàmmeel nga xam ne ñu bëri ci ñun dañoo naagu dañoo fàtte yi fu bàmmeel so ñewé sax ji jéem fatali nit ñi né ah mbokk yi nañu bayyi xel ci bammel gaa ya mer né no yaangi jël suñ time time amut <clears throat> bammel don ab pax bo xamné ne pax bi daanaka upput li su yaato be yaatu upput sama loxo bi li wala bol nga jël misali tabal bi ëpput li domi adama bu mënta génn ci ci ci ci ko suuf ñu bëri boog ci ñi jullit ñi ñoom la leen diine jàngal mooy dañuy gas suul même su fekkee ne am na ci yeneen i mbir yoo xam ne ñeneen nit ñoo xam ne noonu ñoom du noonu lañuy doxale waaye ci islam la ñuy waxee islam ne su génnee àddina fañ koy robe dañuy gas ba xóot ci ñaari am ci ñaari gasin gas ba xóot ci côté bi nga xam ne fa la ñuy jublu. di julli muy muy xibla eh, foofu la ñuy gas ci suuf su ñëwee foofu lañ koy dugal ba mooy anam bu njëkk bi anamub ñaareel bi moo di ne dañuy gas ba mu xóot su ko defee ñu gas ci digg bi gasaat ba mu xóot ci digg bi dal di ko fa def lii may nii la gasee bàmmeel <coughs> bàmmeel am na fitna yal yàlla yombalal yal yàlla musal waaye bàmmeel am na fitna am na ixtibaar am na examination bu fa nekk soo ko paasee paas nga soo ko jàllee jàll waaye soo ko soo ko fiili soo ko jàllutee yàlla yàlla musal jàlluloo fitnatul qabr yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla yombalal laaj yooyu nga xam ne suñu dugalee doomi aadama bi ca paxam ba ñépp dal di dellu xarit ya dellu doom ya dellu alal ja dellu jigéen ña jooy doom ya jooy jegeñaale ya jooy xamalaale ya jooy ñi yépp wane seen naqar waaye ñu jël la sang la sang la jullee la jëme la ca bàmmeel ba jëme la ca armeel ya fañ la defaral ne fii ngay war a tëdd xaar sa borom subhanahu wa taala xaar sa borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu nga nar fa tëdd yow kenn la nga fay nekkal mooy say jif moo tax mbokk dafa war a rafet déglul fitnatul qabr kañu jël dugal ko ca bàmmeel ba rob ko defar ba mu baax ne ah nañ ko ñaanal ndax laaj yàlla saxal làmmeñam suñ koy laaj yàlla jéggal ko lu am la de ab julit daf ko war a gëm ne dinañ ko laaj ñetti laaj ci biir bàmmelam ñetti laaj dinañ ko laaj an rabbe kan mooy boromam kan la muy jaamu dinañ ko laaj diineem dinañ ko laaj yonentam ba di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yow mbokk jullit lan nga préparel ñetti laaj yi sa borom sa diine ak sa yonent lan nga xam ci ñetti yii waaye kenn du la yóbbu ñu lay laaji sa palaas bu kowe ba ca àddina duñ la ko laaj duñ la laaj sa alal yu bëri ya du foofu lañ la koy laajee duñ la laaj sa daraja bu bu ba ca àddina duñ la ko laaj waaye lañ lay laaj ca biir bàmmeel mooy ñett yii an rabbihi wa diinihi wa nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yow mbokki jullit ñu ne lan nga préparel ci xam ci sa xam sa borom xam yàlla wallahi ñu bëri dañoo fàtte yàlla jalla jalaal ñu bari àddina def leen jël ñu fàtte seen borom bi nga xam ne moo leen bind te la tax mu bind leen mooy wéetal ko moom yàlla jalla waala wéetal ko waaye fàtte nañ àddina mën na leen seytaane manq na leen génne na leen fànq leen faagaagal na leen fàtte nañ seen borom jalla waala waaye dinañ la laaj kan nga doon jaam kan nga doon jaamu nañu moytandiku jaamu jaamu lépp loo xam ne dafa wulis yàlla azza wa lépp loo xam ne dafa wuteeg borom bi jalla wa ala nañ ko moytoo jaamu te dafa bëri nag dafa bëri moo tax jamono ji ñu nekk ku yàlla saxalul yal nañu yàlla boole saxal ku yàlla baaxewul di nga dugal sa bopp ci ay mbir yoo xam ne ëllëg su la yàlla dimbalewul doo ci mën a génn waaye yàlla dina la laaj wala boog dinañ la laaj an rabbe am na laaj boo xam ne mu nga jëmee ci sa borom am na laaj boo xam ne mu nga jëmee ci sa diine lan mooy sa diine lan mooy sa yonent nañ la ko laaj kon fexel bay laaj yi nga daldi ko peek nga xam ne suñ la ko laajee suñ la ko laajee bésu pénc wala ca bàmmeel ba dinga ko mën a tont loolu nag mu ngi ñëw ci nga nekk ca lañ la digal nekk ca la neex yàlla bàyyi la neexul yàlla nekk ci diine lislaam bàyyi lu wuteeg lislaam topp sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi bidaa bàyyi bokkaale bàyyi xarfa xuufa bàyyi lépp loo xam ne caaxaan la lu wëlis li fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi nga bàyyi ko gis nga alquran ak sunna dafa leer te tawxid muy aqida muy defar pas-pas moo ca njëkk gannaaw loolu islaam la diine la diine booba dafa am yoon dafa am anam diine kenn du ko déggee ci anam bu la neexee déedéet waaye diine diine la bam doonee diine moo tax borom bi tànn ko ne wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala min kon jëlal islam booba jaamul yàlla ci anam bi nga xam ne noonu la ko alquran indi noonu la ko sunu yonent bi indi noonu la ko yonent bi alayhi salatu wasalaam ak ay saxaabaam noonu lañ ko jëfe dalil ba ñëw na ci alquran alquran indi na ko ci لاجي laaj سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ين يعني يالا سخل كون لولو تكتال دليل لا بوي وني ونني دينا ني لاجي ci bir bammel ينتبه عليه الصلاة والسلام في حديث بو خمني البراء بن عازب رضي الله عنه مو نيو كو نتلي ني جولت بي دينا نكو لاج ci qabru ne dina seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla jalla jalaal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la yàllaa ko yónni kon sual booba muy laaj yi ñu wax ñëpp la nag ñëpp la laaj bi di peeg amul ku gëm yàlla ka amul kéefér ba ñëpp la yàlla la ñuy laaj yi kan mooy sa borom kan mooy sa yonent lan mooy sa diine moo tax borom téere bi ne wa sualu amun lil mukallafina min al muminina wal kafirin kon amul kenn ku muy ba eh, ca biir bàmmeel ba amul kenn ku muy ba nañ ko laaji ñetti laaj yooyu dañuy taxawlu foofu incha allahu taala suñu delsee ñu xool lenn ci loo xam ne eh, del dalil ñëw na ci lu aju ci mbugalub bàmmeel yal nañ ci yàlla musal dañaan borom bi jalla waala yàlla ñu defal ñu jàmmi àddina ak jàmmi alaaxira دنيان برم سبحانه وتعالى يلا سخل نيتي توحيد يلا سخل نيتي عقيدة بو خمني مو نك القران تي ننتبي عليه الصلاه والسلام اكي صحابه نيونتي يلا مسلم تي لب خمني bokale la musal ñu ci lépp lo xamne bida la saxal ñu ci alxuraan ak sunna di ñaan mbokk mi wala di ñaan yàlla itamit mbokk mi nga xamne mo koy taxaw di yusuf bo jang yalla nako yàlla yok yalla nako yàlla defal jami adna ak jami alakhirah ak kep ko xamne yang ci taxaw di ci def sa doole di ci def sa mamnan be benen jotay insha allah taala sen mbokk la musa jalla abu Fatima alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh